mbokk internet yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di ko génn te la gën a fees dañ koy daal di door nag imam Moussa Samb imam bu grande mosquée bu Dakar nag dëkk du guniru ba nag moom imam Moussa Samb ay waxam nag ñaari saa su waxee nag wax lu nit ñëpp nag du coow moom mii di imam Moussa Samb ginnaaw bi nga xamante ne bii nag daal dinay wax ca kanamu Bassirou Diomaye Faye ay kàddoom nag nit ñi ñëpp doon ko ñaawlu ni ki noonu nag ki nga xamante ne bii moo di am bay Mbaye Guèye Sylla foofee ca Daaru daal di indi ay kàddu yoo xamante xamante ne bii nag moom mële bu yegoon sax du ca daal di dugg ndaxte kii di Mbengue Sylla nag ma nga daal koy yamalewaat la ko wundu la ko sos ñi nga ne bii daal moom moom lay lijjanti mooy li nga xamante wax na ko nag muy wàllum alal ju wàllum sunu jumaa la ma ngay xamle nag ne jumaa ji ba muy lim xaalis bi ñi ca dugal seen xaalis dërëm boo xamante ne bi dafa bokk ca seenu askan ñoom ñooñee dugg ca nee ma ngay lim nag la commencé Touba jàpp Tiwaawoon jàpp Daaru Mooti Daaru Salaam Wakaam ak yeneen dëkk yi nga xamante ne ba ci Baye Niass fee ca kaw Kaolack niñ ca dugal ci ay koppar waaye limul benn yoon ñi nga xamante ne bi moo di lébu loolee nag tax na ba moom moomee di Mbaye Guèye Sylla nag la dafa daal di yamalewaat ki nga xamante ne bi moo di Imam Samb ab seesam ngir mu daal di xam boppam nag bu baax a baax jëm nag ci wàllum njiit gi nga xamante ne bi moom lay jiite ca Grande Mosquée bu dakaar